merci beaucoup d'être avec nous euh, ca fajar ba tey ñu ngi àndandoo ak yéen 7 heures 7 heures fan 9 heures 20 plutôt mooy doog a jot c'est le décalage horaire à la cabine technique tonton ak et Pape Samba Thiam au au micro. <laughs> c'est comme ça que ça se faisait à la radio au micro Pape Cheikh Diallo on va parler maintenant parler on va parler maintenant sport voilà on va parler sport ak euh, Mamadou Ndiaye d'abord dañuy wax euh, comme euh, chaque lundi dañuy wax d'abord ci match amical bi amoon ci diggante Rwanda ak Sénégal voilà et puis ils ont assuré hein nos nos lions ils ont assuré les victoire consécutive mu nekk ndam lu am solo boo xam ne Sénégal am na ko fële ci fële ci Rwanda mm. mu nekk match bu am solo tamit di wax ni Sénégal dafay waajal match fas yéene jàkkaarloo ñii di waa Burundi ci Bujumbura samedi bi Pape mu nekk match yi nga xamante tamit Sénégal un point la wut pour qualifier fële ci CAN euh, Gabon mm-hmm. tamit mu nekk euh, match bi nga xamante tamit Sénégal daf ci wut ndam ndam bi tamit dafay am solo ci classement FIFA bi de mois de juin bi parce que Sénégal mm-hmm. ci la ñuy def tirage tirage au sort euh, coupe du monde bu bu 2018. voilà et puis Real de Madrid. <laughs> yow ko faral yow. personne. ah bon je suis plutôt basket comme les Américains. ah oui. waaw amoon ah, na final basket. yow ñoom ñoo ëpp ay fans en fait. félicitations à Bijou moom mi nga xam ne supporter Real de Madrid ak Cristiano Ronaldo. équipe bi moo gagné mu nekk onzième sacre pour Real de Madrid tamit li ci gën a mooy. Euh, <laughs> Zidane mi nga xamante ni cinq mois la jël équipe bi. ah oui moo daal di daal di daal di lii di Ligue des champions bi mu nekk tamit mu bokk ci cercle sept. entraîneurs yi nga xamante tu sais moi je sais pas à chaque fois que je vois Zidane ni man ni ma ko li ko dal nii. damay bëgg mu dal El Hadj Diouf lu tax. Ah c'est-à-dire quand je vois eh, Zidane rek moi je vois El Hadj Diouf équipe bu mag. Euh, noonu ñuy yëkkatee Zidane. muy am oh. équipe am di et tout ça je sais pas je pense à El Hadj ah je vois Zidane je pense à El Hadj ah, que vraiment El Hadj Diouf def na fi jaloore. bah oui vrai que euh, gagné ak Coupe d'Afrique. oui il peut il peut il peut assurer mais am na ñu koy ñu koy ñaanal moom tamit mu gën moom tamit fii yegg mu yegg. mais je sais pas pourquoi je pense à El Hadj Diouf. waaw euh, loolu la parce que il a appris El waaw waaw mi ngi ci mi ci ah, ngi ci yoon mi ngi ci yoonu. il est entraîneur aussi de formation su ma juumul. defe naa entraîneur la de formation. d'ailleurs mais du jàng mi du doy ay degré la da ngay comme Zidane. avec sa femme qui est très belle Valérie que j'embrasse <laughs> <laughs> Ah. ah comme Zidane bi mu ko def dafa dem yori euh, jàngi entraîneur bi mu paree football dafa dem jàngi entraîneur bi mu ko jàngee pare ñu ñëw ñu jox ko bu nekk ci ginnaaw. ba cinq il derrière lañ ko doog jox équipe bi mm-hmm. bien vrai que yàlla jàppale na ko waaye tamit gars yi bàyyiwuñu ndax Zidane comme ni mu ko doon waxee sànq en cercle sept entraîneurs yi nga xam ne en tant que joueur jël nañu Ligue des champions moom day entraîner day coach touché ba tubéy ji xar ndeysaan. ñaata yoon ay tubéyam day <laughs> xotteeku rek moom xaa tubéy <laughs> tubéy bi day <laughs> da koy ñawlu. non dafa relaxé yére boo ko yóbbee da nga ko yóbbu ci tailleur bi mu ñawaatal la. boobu ban yére la tubé tubéyam ji xar na fan la. ñaari yoon eh, a na ko ñawaat quoi. ah boo jëndee tubéy da koy ñawaat. oui boo bañee mu xotteeku en plein direct. ay dafay xotteekoo ginnaaw. zidane zidane Pape Cheikh zidane Pape Cheikh nii comme ni ñu ko waxee te fi muy xotteekoo boo baax. <laughs> parce que yooyu balaa ngay balaa nga yëg ni xotteeku na. seddaay da ngay jékki-jékki seddaay bi ngay yëg ci seddaay bi ngay xamee ni <laughs> en fet ci seddaay bi ngay xamee ni sa tubay xam. dal na ma ci jip <laughs> Kia dal na ma ci jip de. bi gàcce ma am keroog ca bon Zidane on est content. on est très mu nekk premier français bi jël Ligue des champions. am gis nañ fi Arsène Wenger nga xamante ni depuis 86 mu yor Arsenal. finalu ba tey mënul fexe ba jël ko. Zidane yàlla may ko chance vraiment ñu koy ñaanal ndam li mu jik mu jik ko <laughs> voilà euh, moom la Pascal Obispo woyoon woy bu rëy ba. et puis on reçoit notre invité Fatou Diouk championne. voilà Fatou championne. Euh, équipe nationale championne. Euh, eh mais je pensais pas que tu bomb. Hey. Tu es une bombe. Oh my God. You are a bomb. You are a very bomb. Really? Very good bomb. You are a big bomb. You know you you do today boom. I didn't know. Yeah. <laughs> Thank you very much. I like your mbaxane. bàyyi seede yi Alfi bàyyi yi ngay seede bàyyi yi ngay seede. by yi ngay seede your robe your shoes yeah I like your style voilà elle championne elle championne Fatou Diouk euh, mi nga xamante ñu recevoir ku mu nekk euh, vacances Sénégal fii championne volleyball volleyball mooy capitaine équipe nationale boobu di sànni naan nii boobu di ma neexee voilà voilà ci ñëw <laughs> bi ñuy bi noon aj noonu. ah après après nañ ñëw ci oh ci parcours am dañuy oh dañuy damay bàyyi Kya rek mu wax parcours Fatou Diouf. waaw nekkoon na meilleure attaque CAN Nairobi. Oh en mu bokkoon ci top 10 français meilleure marqueuse euh, nekkoon également euh, meilleure euh, meneuse française. oh my God nekk meilleure joueuse CAN Nairobi. toujours et puis meilleure joueuse tam euh, ci jeu africain Algérie. Oh euh, elle a un parcours quand même. Euh, riche impressionnant mi ngi nekk mi ngi nekk fële ci club bi mu nekk ci euh, Azerbaïdjan di Azaray Bakou. Fatou Diouf ñu ngi lay nuyu di rafetlu bu baax sa teewaay fii ci équipe bu yeewu leen ñoom ñëpp ñu ngi lay ñu ngi lay bëggee. Euh, maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di leen nuyu yéen ñi fi toog yéen ñëpp mhm. maa ngi rafetlu tamit invitation bi ngeen ma invité je suis vraiment très flattée d'être là. très émue comme d'habitude. Est-ce que tu as des ah, non non non non j'ai l'habitude j'ai l'habitude. un peu euh, maa ngi nuyu ñëpp di nuyu suñu waa kër di nuyu sama sama yaay tous les Sénégalais et tous mes femmes fan yi nga xam ne j'en même plus hors Sénégal que Sénégal donc maa ngi leen di sant bu baax di leen bigéey di leen faire un bisou. Mm-hmm. voilà. ñii laa ko bëgg voilà Fatou nga ñëwaat ren ci sa saison bi fële ci Azerbaïdjan ji ci Azerbaïdjan juste euh, sacre bi ngeen am. Mm-hmm. champion en titre. En fait, euh, Rennes, c'était un championnat assez, assez compliqué parce qu'on a commencé avec beaucoup de défaites, par exemple. Mais kontaan nañ parce que dañu ñëw fekk équipe bi jeexal euh, nekkoon troisième. ñu ñëw jël paie. Donc c'était une très grande fierté et j'étais vraiment contente que ça s'est bien passé, qu'on a pu prendre la coupe et que donc prochaine année, ça va être encore Champions League. Et pourquoi le choix de Azaraï Bakou? Pourquoi le choix euh, parce que dafa nekk dëkk boo xam ne le volley est très connu en fait. Mm -hmm. euh, Azerbaïdjan, ñun suñu match yëpp c'est télévisé. Mhm. Euh, ah. Dans la la rue seen dëkk volleyball quoi. waaye voilà football. exactement euh, dans la rue on est très connu donc on passe pas inaperçu donc pour un sportif c'est y a y a pas mieux. et eh, quand tu marches là-bas dañ lay xàmmee. bien sûr. <laughs> day star nga foofu quoi bien sûr. nga wax ni Sénégal laa jógee nga ne leen dëkk bi moo ngéwéle ba dëkk boobu la war a ah, immigré ji sax Assane Badja. Badja dëkk bee Badja we daal Assane Badja. non dama liggéey waay waay nga tànn Assane Badja. waaw mais Azerbaïdjan. tur bi moo la neex tur bi day dem dëkk la tudd xaw ma ndax xam nga. Baku waaw Colobane am na place bu ñu tuddee place Baku. Baku waaw oui je connais. je connais ah voilà ah ouais moi j'ai habité près de Colobane. exactement <laughs> donc du coup nga dégg rek day familier si yow. Azerbaïdjan ah, ah. da nga naan fii ma fa demee naa fa def dara. Ah, et ça a été le cas donc alhamdulilah. fan fan la nekk Europe la nekk wala. mu ngi Europe mu ngi Europe mais kii la gën a jege en fait euh, am na frontière entre la Géorgie euh, Arménie. après Russie après donc tu la mer Noire. ñoom ban làkk la ñuy làkk azeri russe ak anglais azeri ah dañuy làkk russe waaye ak ah. ak anglais yow làkk russe ak azerbaïdjan non damay tax rek mais mhm. anglais bi laa fay wax anglais bi dafa wax parce universel man tam damay làkk anglais dégg naa la eh I speak English very well eh non dégg naa la non moo ay faaw moo ay eh, mais dégg naa la <laughs> hey, eh, be careful ah. kenn baalu waat. be careful of me. noppi naat noppi naa waxtuma dara. of you waaw da ngay lakke kay baa ngay. sinon. noppi <laughs> naa waxtuma dara. sa kër nga nekk when I finish my show I shiver you in your house. je respect je respect. flow you gotta flow her. daf ma xaw a impression en général ci sport ci ci des femmes qui pratiquent du sport euh, en général dañuy xaw a courir duñu am style entre guillemets. Euh, mais moom euh, dama gis ni que dafa xaw dafa am caaj. ah Abi Mbacké Thiam Abi Mbacké Thiam ngay tànn dafa féminin dafa dafa voilà dafa dafa dafa dafa jigéen dafa jigéen <laughs> donc quand je me suis renseignée. dama dégg ni dóor léegi. <laughs> en plus dafay dafa nekk styliste en même temps. par hmm. terre. Moi, je fais du en fait. waaw mannequinat oui. ouais, je des défilés je fais des couvertures euh, de magazines. Euh, quand j'ai un peu de temps parce que le sport en général n'a pas trop le temps mais dès que j'ai hey, du eh, temps de toi. Eh, je mais tu as corps court Adama Paris montre-moi Adama Paris on s'est vu hier en eh, plus. <laughs> xoolal kii laa lay booleel xoolal kii ma lay booleel parce que dañuy défiler tout ça c'est des c'est des c'est des c'est des photos yoo def. regardez mhm. après kii laa lay booleel. Adama Paris mii laa lay booleel regardez la gis nga naa la boole naa la boole ak moom de kii nii Amanda la tudd yow pour kii mu tudd Adama. elle s'appelle Amanda naa boole ak Amanda donc tu tu défiles en même temps le sport que tu fais en même temps sport bi ngay def. Mhm, dëgg ah, je défile. a boole en fait euh, en général par exemple su may jouer des fois on a des jours deux deux trois jours par exemple je suis dans une agence qui s'appelle Venera mu ngi Azerbaïdjan d'ailleurs. Okay. donc agence bi daf may su waxee est-ce que vous avez du temps donc man su ma amee temps rek damay dem mais la priorité quand même reste le sport. d'accord ouais. sont les projets pour Sénégal. Ah, ah bonne question chose. tu sais moi je pose de très bonnes les bonnes questions c'est moi qui les pose les questions bêtes c'est eux. <laughs> les questions nulles là c'est les bonnes questions c'est moi. quels sont les projets pour le Sénégal. en fait chaque année damay def tournoi. Mm. am na tournoi bu may def boo xam je le fais pour des jeunes filles ici au Sénégal. waaw euh, koy def Rufisque parce que je suis rufisquoise quand même. Mm-hmm. dama def sous euh, en même a autre chose Ngaka Blindé donc je suis très oh. fière. Ah. de de venir à Rufisque nous faire eh, ce honneur là mais président nga. si <laughs> nga dégg nga kon foog ñu gisee. c'est pour quand. c'est pour le 15 16 17 juillet. inchallah ah, c'est par exemple euh, pour développer un eh, portfolio. la ñuy fekk. Amérique on sera aux États-Unis ma ko wax. on sera pas là parce que retour. on oh, oh. retour yeewu euh, leen euh, à New York avec toute l'équipe le 9 la a New York. ah dommage on on a pas là on décline l'invitation <laughs> franchement. peut-être une autre fois mais tu invites tu peux inviter téléspectateurs yi ñu ñëw mais nous on sera pas là. Ah, ah. États-Unis we don't hear will be <laughs> will be in USA will be ah. will être will être in New York uh-huh. July July in New York mm. so you you sera à uh-huh. trois jours durant pour le festival tout à fait <laughs> c'est clair que doon topp lu ok mais on est content merci d'être passé nous voir oui d'autres questions Mamadou Ndiaye vas-y. pour finir pour les projets de à Rufisque lan nga mën a doxal pour euh, volleyball bi gën a mhm. gën a avancer euh, projet bi amul ngi dem Ziguinchor. Mhm. et aussi prochainement dinaa dem euh, def un truc à Tambacounda. ah ouais c'est bien par le biais d'un ami qui s'appelle Seydou. elle est eh. de Tamba et ah voilà ah voilà. donc on peut bosser ensemble. donc yow da États-Unis tu préfères accompagner waa Tamba. de toute façon damay organiser test euh, pour le 9 juillet ñu war a dem New York. <laughs> man sama fan si yëpp ñu ngi mu amul fan si fenn sama fan si ñu ngi may xaar merci ah merci de votre invitation des fois duñ la laaj bi nga sant fu mu jógee. si dañ ma koy laaj. d'accord ah waaw ma wax ni mun na nekk tukulóor comme mën na nekk séeréer. d'accord mais tukulóor lañ gën a jege parce que am nañ dans notre famille ñuy ñuy làkk quoi. ah ñu làkk tukulóor. Mm-hmm. d'accord eh mais jug jug jug kenn nettaliwu la histoire bi tax ñu sant ah, seen famille. xaju bi ma nettali. xaju bi <laughs> man jug laa bëggoon sant. Ah, dañ naan borom jug or ak xaalis bi loolu la ñuy wax. bu rafet borom jug or ak xaalis. a ah, jug jug de jug la comme que jug lu jug. Ah, jugal jug. waaw doon na jug nii taa. jugal bàyyi ma dem. jug <laughs> merci beaucoup jug il se jure ba jug laa bëggoon sant de barki yàlla jàll bi parce que lépp ñëpp a sant jàll en fait jaaykatu yàpp yi jàll lañu sant. boutique bi dama ci jàll jaay café dama ci jàll la crédit. boo bëggee mburu dama ci jàll bi mu jaay la mburu boo jàll bi mu jaay la mu jaay la jàll bi mu jaay la ko donc man jug laa bëgg a sant léegi quoi comme ça jëmee wax jugal quoi bon ben merci Fatou Diouf oui vas-y ah. ok euh, bu ñu àggalee euh, moins de bruit moins de bruit moins de bruit tu as fait France 2, tu as fait TF1, tu as fait TV5, tu as même ouvert une chaîne de télé et il n'y a pas de bruit dans tes plateaux. Donc. <laughs> Allez, viens nous rejoindre sur le plateau. On l'applaudit en même temps, nous tous. elle nous rejoint c'est une tradition pour Yeewu Leen chaque année euh, elle vient partager avec nous euh, moment yi nga xamante ni euh, moom la jagleel nit ñi ci rendez-vous mode yu gën a mag fii ci Afrique alors grâce a Adama Paris comme capitale yu mag yëpp dañoo am seen Fashion Week alors Fashion Week bu Dakar nag dañ cee yegg si dañ ci toll donc c'est un plaisir de la recevoir comme disait Fama ce matin parce que dañ na doon jo elle a que yooyu yow yaay xaritu ñëpp. billaay yow. voilà man yéenay yow yaa baax. <laughs> faama sama jigéen la yow sama frère ban télé mooy wane sa kii bi sa show bi ren. est-ce que mën naa ko fi wax. <laughs> waxal kay dina am di problème. ah buuba dafa mën naa se. du ñun. Ah, ok kon jaaraama ko benn télé yëpp mbokk benn garaawul. ñun la waaw mais moom moo deful liggéeyam ñun dañ ko fi xas si kanamu télé bi. grave ça <laughs> parce que c'est sûr que bu demee télé boobu ne la man yéenay samay xaar <laughs> non c'est même pas vrai lui je l'ai appris et tu sais man télé yi ma liggéey yëpp ah dama ñëw na fa ne ma télé bi mooy sama xarit <laughs> quand j'étais à la RTS ñëw na fa man quand c'est important c'est sur la RTS man yéenay samay xarit. soo ñu nee la di dem 2STV di leen la invité. invité Adama Paris ci émission bi Adama Paris ñëw naan ma 2STV moom man vraiment yéen seen télé bi c'est la télé autrement man sama télé <laughs> ma jóge fa dem seen TV mu naan ma bugaan xam nga bugaan <laughs> la xam nga ah, ah, sama càmmin la ah, <laughs> ma jóge eh, seen TV oh. ma jóge seen TV ban télé laa ma bi ma nekkee TFM ba tey at bu jot bu ne télé gis muy diffusé défilé kon ouais mais il est tellement pris et puis le 4 ñun dañu am événement aussi. waaw le 4. lan mooy seen événement. daan dem Fatou Guéwén. gratte ah oui. ndeysaan mais c'est vrai que elle la l'année dernière aussi on a fait à la même date. Eh, par hasard. c'est vrai on et vous étiez en la même temps promo ici. Le... tu te rappelles. le 4 juin Adama Paris et va elle est en train se maa bi laay Adama Paris mi man daan. billaay walaay ma jàpp ko xaaral ma woo ko sama téléphone. xaaral ma jéem a woo Fatou Gueye ba xam. kii daf naan ma am ñaati ñaari nit ñoo ko gën a sonal ci àdduna muy man ak Fatou Gueye. oh aw oh, ma numéro bi nii garaawul. mais on s'est retrouvé ici. non mais je te jure et en plus à un moment je viens de fraîchement des États-Unis j'ai acheté deux téléphones j'ai deux téléphones. Brooklyn ba pare ngay làkk everybody knows. yeah I speak English. everybody know what I say. je te jure. et eh, dem naa sax Miami. xaaral moo Fatou Gueye xaaral moo Fatou Gueye defe naa. baat vocale vous avez atteint yeewoogul dommage dommage su yeewu woon xam naa dina ma jot. how was how was how was New York. good very good very good the time I like the time man damaa bëgg time time xam nga time dafa neex time mu kii bi time mu amee bi the oh, time is oh, very good. no you don't say the time do you like the weather. No. ah eh mais j'ai traduit littéralement. <laughs> time mooy heure. temps temps nag mooy weather. eh mais Dakar du fi heure de. <laughs> je te jure time Dakar du fi heure de. mais man man j'ai traduit lui comme si je, je parlais français. Wow. <laughs> je suis hyper French sur no, les bords. I know, but your English was good when you were in New York. Sure. Yeah, I saw you with my oh. guy. Oh, really? I saw you in Brooklyn. Eh, I was in Brooklyn. Yeah. Do you know Brooklyn Academy? Brooklyn of Academy Music. Do you yeah, know? I know that. Yeah, I was in Harlem. Uh-huh. I was in Bro Brooklyn. Eh, xaar leen lu neex Fatou Guewel Diouf allo. allo. Fatou Guewel. ba bàyyi seex. <laughs> waa waa waa yaay namu naa la. naa waa yaay yëg nga ne daf lay tànn ndax saa yoo jàppee dat ñu jàpp dat. <laughs> Ah, <laughs> ah, ay bu mu wax loolu. non sama xarit la. yaay déggu la nga di. buuba daa xamoon na ñoo fi war a daje moo tax mu ne ma suba. billaay dañ fi waroon daje. Euh, maa ngi moom suñu wërsëg. nee na daaw de ñun ñaar ñoo fa tase. waaye buuba daa xamante ni ñoo fa waroon tase moo tax mu ne ma naa bàyyi ba suba. waa léegi man man yaay xam nga lu ma jaaxal ñoo bokk wërsëg. Eh. daaw da ngaa tànn sa date ren nga tànn le 4 juin man dew ma ci Adama Paris de. Mm-hmm. Sénégal ñun ñuy bàyyi ñun ci moom la ñuy def. man xam xëccoo ko rek. man jàmm rek laa bëgg. non non mais mais li ci neex mooy xam nga xam nga moom bosam dafay teel a commencé. waaw teel a pare. xam nga moom day jigéen ju man góor mosal waay gis nga ci. waaw dinaa ko ci mosal waaw. waaw nuyul ko ne ko man jóge naa waa Amérique ni la na meeyaay. sama yóbbu. I I don't care. waaw. parce que muy dem Amérique yow Amérique xewagul. waaw ba muy dem Amérique di wat boppam. waaw fàtte nga boobu. eh eh you speak English. Eh. yes. yes. Uh, I don't care. I don't care. mais est xam nga ne Amérique ñu ngi préparer le 4 juin gis naa ñu jënd ay pour ñëw Sénégal. maa la wax ñoom ñëpp nga ñëw Amidia sama waa ji yónnee mbubb yi ñu ngi ñëw. maam soxna loo nga ca yoon wa Assane Gueye ñoom ñëpp nga ci yoon mais ñoom nag ñu ne. li ñu daloon daaw daw dal ñu daaw géej dañuy ñëw ba Sénégal billets yi teel a jeex nañ leen dencal seen ay billets. man de looloo ma yem fi ne fi ne sama bopp ubu raab. ah billets yi dafay teel a jeex te loolu baaxul baaxul ci ñoom. man de yàlla nañu yàlla doole sutura rek yàlla. man waa waa léegi suba di nga ñëw yeewu leen. moom da bëgg bu soobee yàlla bu ba laay déglu. nga mu xam ne Adama Barry mii lay indi daal di may daal. <laughs> ay yow loolu su ko xamoon man damay gedd ne ci buntu fi invité woon ñu mais quand suba suba suba émission bi yëpp ah yow lañu koy jagleel rubrique yi sax ci yow ci sa parcours ci lépp yeewu leen suba du am benn rubrique lépp ci Fatou Gueye dégg sooba yàlla sept heures ba onze heures yow la ñu koy jagleel dinañu wax ci album bi nga xamante ni moom mooy accompagner euh, le 4 juin bi waxtaanee date bi te bu soobee yàlla li ñu ko waxee woon rek. Mm. après indépendance ba tey li nga fi anniversaire kenn anniversaire ko. Mm. waaw lu yàgg la waa léegi doo nett wala ñu bàyyi bu suba nga nettali bi ñuy xamante temps bi ma rafetee di ñëw di la seet si Médina. sa <laughs> ak saako doom. <laughs> merci yaay à demain. ba demain jërëjëf jërëjëf jërëjëf. waaw Pape Cheikh nit ñi gisuñu sa dàll yi. elles sont trop non mais elles claquent. non ah, si elles sont trop ah, elles sont eh, elles ah yeah I like my shoes. maa ngi ko jëndee maa ngi ko jëndee 500 dollars. that is a lot of money. ah lot of mooy la. mooy a lot of money. bëri bëri dafa bëri bëri na trop. yee et puis seen one dafa bëri ko wan wan wan yu bëri laa joxe. ba 500 je te jure. kon de valise la. jëndu ma ko 500 de 19 dollars. <laughs> jar na ko nice na trop. I love you so much. I love you too. yi. ak anglais wala lan. wolof voilà parce que nous sommes au so euh, but euh, et puis li may énervé mooy pourquoi bu ñu laak anglais ñu wax like like xam nga tey émission bi like bi dañ ko tàmm di wax ah. like ok like wolof laa bëgg ñu wax parce que man I love my country man Sénégal rek ah. voilà ñu bàyyi la nga nuyoo ak suñu xarit. maa ngi nuyoo waa <laughs> Sénégal man dee naa ba pare <laughs> nuyu di remercier TFM di remercier vraiment Pape chaque année comme ni nga koy waxee. nga dalal ma fii. et que ma mun a def promotion sama événement bi. di fi nag ay jigéen yu mën góor comme comme <laughs> sama maman bi. Mhm. donc kontaan naa ci vraiment merci beaucoup. waaw alors tu te rappelles am y' ya y' a à un moment donné on a on dañu jëndoon champagne. waaw loolu xoolal ñu ngi doon maag booba ñu ngi doon wax waa presse bi ni ñu mënee wax loo xamante du loonu. pourquoi loolu léegi. mais lu tax presse bi yow mën di la ñu am ay journaliste ay journaliste rek lañ fi. <laughs> she's am na I'm not crazy oh I'm am na benn moment boo xamante ne ku nekk dafa war a assumer ay actam ku nekk dafa war a assumer statut am ba pare ku nekk war a fonk li muy liggéey. dëgg la parce que xam nga man may liggéey sama liggéey. Mm. ñu koy xajamal loolu rafetul. rafetul xam nga mm. par exemple ñun ñu ñu ngi jëloon suñu ay nu mu tudd. jus de pomme champomy xaw ma la tudd waaw xoolal ñu jël après ñu def gros titre Adama Paris boit du champagne. après non en plus dans l'article le pire c'est que ils ont mis un faux titre mais dans l'article quand tu lisais ils disaient que c'était du champomy c'est ça veut dire que dañ pour attirer nit ñi rek la ci ay kii. est-ce que sama papa oo na ma waaye nga ne. <laughs> <laughs> après mu ne ma c'est des menteurs mais man lii affaire yi ñuy ñëw Sénégal daal am na yoo xam ne c' est ce qui fait le charme de ce pays Adama. Amanda non c' est pas le charme de ce pays. oui mais mais loolu moo fi am. non le charme de ce pays c' est vous là. garaawul xoolal ba tey garaawul Adama yow da ngaa commencé yow léegi Adama da nga bëri wax nag de. non dëgg la ça j'ai remarqué parce que yow mayatuloo benn journaliste wax. je t'ai vu sur TV5 je t'ai vu sur TV5 bàyyiwuloo journaliste bi wax. l' année dernière quand tu faisais fashion week bu Paris après bu Canada. non parce que ñun dañ lay limité temps. non mais mayoo leen foo wax et puis tu parlais d'une robe même nous on en a parlé parce que nous étions tellement contents de gis ni da nga génne modèle boo xamante ni j'oublie le nom de cette robe là mais euh, non il y avait am na tour bu mu amoon euh, je me rappelle plus on en a même parlé sur ce plateau ah. euh, bu mujj bi ah et ah. c'était c'était c'était c'était franchement magnifique alors yaa ngi juddoo Congo waaw oui mhm. gëj nga Congo non géejuma fa dem naa fa daaw ren euh, en je suis allée deux fois. d' d' accord est ce que ñoom organiser ngeen leen. Euh, fashion week parce que capitale africaine bu nekk da nga da nga am objectif ñu am seen fashion week. effectivement defoon naa fa effectivement événement. Mhm. la première dame et tout. d' accord c' est très bien passé. et on parle bu Sénégal cette année. waaw euh, lan mooy nekk particularité voilà lan mooy nekk particularité bi waaw. ay xale yu rafet comme yow. <laughs> <laughs> non on attend comme d' Nathan ba di designer. Euh, ay créateurs yu jógee fépp ci Afrique. oui oui euh, en Afrique cette parce que euh, depuis quelques années de vraiment mettre en parce que voilà ñoom ñoo gën am coono pour percer. parce que sunu mode bi c'est vraiment bien structuré. Ah. donc ñuy jógee Rwanda ñu jógee Cameroun Côte d'Ivoire Maroc vraiment il y a ci dëkku Afrique yi. oui oui ah c'est bien oui, ça. oui oui depuis deux ou trois années vraiment je mets l'accent pour artistes euh, africains yi. Euh, ba pare aussi on amène des acheteurs yooyu tamit depuis trois ou quatre années dañuy jéem a am ne acheteurs yi mooy ñiy ñëw di jënd ay si par exemple. Euh, Galerie Lafayette euh, suñu partenaire la léegi mhm. depuis quand même deux ans euh, donc euh, stis dinañu am am chance après peut-être ñu exposer leen su fekkee ne affaire yi rafet na te loolu ah. c'est c'est vraiment un big deal mhm. et on amène aussi des acheteurs ci ay genre boutique comme galerie yu nekk Nigeria Nigeria mhm. South Africa donc on essaie de faire que mu gën a industriel ba pare cette année particularité bi dañuy def expo vente pendant ah. 4 jours. ok boo xamante ne nit ñi xam nga soo mhm. nga ñëw nga xool yi. modèle bi la neex ko waxtaan ak am benn. Euh, voilà échange. donc loolu a nekk innovation bi. loolu mooy waa innovation bi ren. loolu mooy innovation bi. parce que parce que ce qui est intéressant c'est une bonne occasion je pense que pour pour créateurs africains. exactement am possibilité. Euh, euh, montrer leur modèle ci ci ci ci podium bi. mais en même temps jaay. Ah, en même temps rencontre. Mm. parce que xam nga ci rencontre xam nga en règle si fashion week yi wala fashion show yi jaay bi du am tout de suite. mais li gën a intéressant mooy. acheteurs yi voilà parce que nit du ñëw rek jënd am na créateurs yoo du ñu jaay seen collection non parce que loolu symbole si la. buñ mhm. ko tuddee. Euh, euh, non yére. yu compliqué simples. yeah uh, simples how you say simples. ok so. Euh, ma ko déggee. non la mooy mooy modèle unique. voilà modèle ah, voilà donc xam nga loolu mënuñ ko jaay te mënuñ ko bañ a jot tout te mu défilé 34 du la jot. donc loolu yëpp ay rencontre la indi pour ñu gisante euh, pour business jur ci. Oh. loolu lañ voilà. ok ok est bu particulier boo xamante ne moom nga. Euh, non man man toujours comme ni ma ko waxee man j'aime pas imposer de thème. problème oui. euh, au ah, parce que je pense que création comme wéy comme leneen euh, voilà voilà ñun loolu duñ ko mës a def duñu ku nekk da ngay indi la la neex at euh, lii lii jógee sa dëkk parce que li ñu def ko même mooy ouverture boobu noonu ngay wut ouverture que chacun amène sa culture euh, sa dëkk et tu vois des fois ñoo xamante ne bokkuñu dara sori nañ fa ñu am euh, benn. si la ñu gisee ay tendance c'est ça les tendances c'est quand plein de défilés se font. Mhm. après nga gis ni am na ñi ñu niro ça veut dire que. Euh, tendance euh, voilà. tendance à tout voir. oui, on aura de la haute couture avec vraiment une styliste exceptionnelle, Eliane Le Super, qui vient de, de Guadeloupe. Okay. Mhm. On a vraiment, on a beaucoup de stylistes hommes cette année parce que chaque fois, Gogne est frustré parce que nous défilons le bari. toujours les femmes. Voilà. Avant. Mais parce qu'il y, y, a très peu de stylistes um, qui font de l'homme okay. hein, par rapport aux femmes. Mhm. Donc, l'eau, nous indi et toujours daal spectacle bu rafet là on a fait le casting hier xale yi bëri nañ trop macha rafet. Ah, qu'est-ce que te fait parce que léegi xale yëpp dañu bëgg a nekk. man non 700 personnes on a eu hier euh, dañuy Week bi ñëw man yi ma sax ma dóor ku gis ne la naa la booleeg Adama Paris. <laughs> yow doo dóor kenn. genre jël numéro téléphone invité chez moi et tout ça waaye donc je te mettrai en rapport avec ma soeur c'est ma c'est elle <laughs> top quoi voilà. Ah, <laughs> qu'est-ce que ça quelque part xaw ma naka la ko Adama di gisee est-ce euh, mi ngi fi parce que y a beaucoup de filles y a mm-hmm. beaucoup de mannequins mm-hmm. est-ce que yow mi nga xam ne chaque année da def casting mm-hmm. euh, yaa ngi gis euh, masse bi nga xamante ni dañuy gën a di ñëw est am nañu expérience par rapport ak yow li xale yi lay jël yow da nga de toute façon mais ñun ñooy ah, ma cin yu màgget yi ñooy def tax ñun safi départ vous êtes màgget mais moytul ma cin yu màgget yi ancien old. waaye màgget bi tamit màgget màgget mais mi ngi fi de. non xoolal. yu bëri ama ah, tu vas défiler non non bi oui mais dama leen bëgg dama leen bëgg a woon dama leen bëgg a woon attraction wu défilé bi cette année ki nga xamante ni moo na a nekk attraction bi benn man mannequin la boo xamante ni xamante naak Adama Adama Paris bu yàgg voilà donc ñoom ñaar ñu ngi dëkk tase bu yàgg ah. mhm. euh, New York la ñu tase woon ren kooku mooy nekk invité Adama Paris mhm. da ngeen bëgg a découvrir kan la bi <laughs> <laughs> alors moom mooy nekk attraction le 4 juin. Dakar <laughs> Fashion Week. modèle la c'est un modèle. li New York la woon bi ñuy njëkk a tase. yeah Times Square. <laughs> parce que at bii lay doog xam la kii di doog di doog a xamante ak Adama Paris donc ren kii mooy nekk attraction euh, bi regardez encore la photo ah, def ko plein écran na ne ko regardez comme il est beau il est magnifique mm. et puis il est svelte taille voilà il est il est rafet ba bleu et puis c'est ses en plus ah léegi xanaa léegi lox naa di nga lox <laughs> ah il faut nga bàyyi affaire yu ñuy sax kon xaaral ma ñëw létt ko <laughs> allez euh, donc cette année euh, le 4 juin moom mooy nekk euh, défilé bu mujj bi mais y a d'autres dates y a un programme tellement riche mm-hmm. euh, et que tout le monde peut en profiter quand même donc on commence le le 3 ah non le 2, c'est un jeudi on fait un défilé au Boudaba aussi Plaza mm-hmm. suivi d'une soirée mm-hmm. Euh, là, c'est des stylistes, euh, des jeunes stylistes internationaux et locaux. Et euh, après, on fait le vendredi un défilé au Marina Bay. Xam nga ñun dañuy découvrir des nouveaux lieux et c'est super. Elle a l'air de c'est magnifique cet endroit. Euh. Vraiment. Et c'est ça aussi Dakar Fashion Week. Voilà. Dakar Fashion Week ànd nañu Radisson ànd nañu euh, euh, King Fahd en 14 ans. plus des modèles, da ngeen di wone les bons coins de Dakar. Mais on fait du tourisme ah vraiment, du tourisme de mode, mhm. et loolu dama ciy sawar donc Marina un nouveau lieu ici à, aux, aux Almadies. Mm On fera un défilé euh, aussi avec des créateurs euh, de l'extérieur mhm. et suivi d'une soirée au Five Up euh, chez l'ami de Bouba, mhm. la tire. La <laughs> tire <laughs> oui, après donc samedi, le, le, le grand défilé au Radisson mhm. est suivi d'une soirée au Bouddha, voilà. Et le dimanche, on fait la soirée de fermeture, la soirée blanche. Ah, white party. Kon ni nga def noir ni da blanc. OK, party, white party. Ce Five. Et puis comme je dis. mais why white. parce que why not. <laughs> why not ma why not. kër ki Serigne Touba. why not I am very intelligent. why not. ah da good good. pourquoi. Ah, <laughs> eh, a un resto qui s'appelle Why Not ici. ah Sénégal. fan la foofu on ah ça n'existe plus. <laughs> ah bon non. waaw bàyyi ko yeggal sama programme donc après du dimanche euh, du lundi. ak ah, bonne promotion. oui bah, bah oui je suis là pour ça en même temps. du <laughs> lundi. eh hey, t'es pas venu nous voir en amitié. mais si en même temps tu sais que je t'aime. du lundi au mercredi. Euh, il a l'expo vente euh, au Sea au Little Buddha de 11 à 18 tous les jours. donc soo leen paree cette ngeen daamu ndànk ñëw. c'est vraiment pour voir. et soutenir la mode africaine. Ouais, parce qu'on a important. besoin de ça. parce que les gens disent toujours damay casse damay lii mais Alphie xam na ne on a besoin que les tu sais nous euh, tu sais y a plus pratiquement d'événements mode. y a plus hein euh, y en a plus y en a plus à Dakar. y en a plus nous, quoi on existe ah, grâce aux gens. événement de mode presque amul fi gros événement de mode. non non non ça n'a rien à voir man je parle pas pour moi. elle parle effectivement mais après nit ñi bëgg a tourner gis nga non non non man je parle je parle. yow léegi booy défilé sax da ngay suuxaale. non non non je parle ndigg. après su may défilé quand même ba léew di défilé. nga yàq yéen a jàmbur yi. su may défilé ba léew lay commencé défilé ma mën a pousse mais événement mode amatul fii quand même quand même. amatul on a eu Jamon on a eu Sira Vision on a eu événement d'achat Nico et dit que j'embrasse très fort. y a eu y a eu beaucoup beaucoup beaucoup. mais est-ce que c'est pas aussi ay yéen ñi nga xamante ne par exemple. Mhm. par exemple précurseurs yi yéen ñi nga xam ne yéen a démarré. Mhm. da ngeen dem bi la Adama ne da ngaa rafet ba tey da ngaa changé di ngay waxee. waaw. est-ce que yéen it beautiful. est-ce que franchement yéen it Adama da lay jaay dóor kat. mais Pape Cheikh dañu jaayuma la tu es belle. merci Adama. <laughs> waaw nga ne est ce que ñun ñoo alors est ce que du euh, par exemple ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon parce que dama dama seet bu ñu demee ba <laughs> défilé tuñu mhm. dañuy def benn reconversion jàll ci leneen mhm. du ñu concentré mais tu parles des mannequins ou tu parles que ce soit des mannequins am na ñoo xam ne mën nañ démarrer sax ci mode mais après du ñu def association boo xamante ne lañ mën a eh, organiser nan lañu waxee dof ci anglais dof pire bi crazy dëmb non am na beneen dëmb xaw <laughs> dëmb lu ko dal. parce que dafa am ku ma wax à New York damp. xam ngay wax dëmb. nga wax ko rek nga wax nga ñëw wax ko kii yaa. damp ya damp ok yow damp. okay uh, you can. to be continued. yeggali <laughs> to be continued. <laughs> non non comprendre li ma bëgg a wax mais li li la Alfie wax gis nga par exemple mannequin yi seen rôle du du du ñëw defar euh, mode bi ñoom dañu ay acteurs lañ si. comme ñun suñu rôle mooy par exemple ñëw defar euh, suñu défilé mooy euh, montrer nos créations. mais normalement sax fashion week ci dëkk ya yi am fashion week fashion week du benn nit moo ko moom. <laughs> lii rek ngay gis Sénégal rek ngay gis man ma moom fashion week. parce que ay consortium la ay ay non ay consortium ay état wala ay ay groupe d'investissement ñun li ñuy def nii waruñ ko def ñun ñun dañoo waroon ñëw indi niveau de l'état accompagnement voilà non il a ah, ah, ah, raison c'est un débat quand même intéressant tu sais il n'est pas connu il veut dafa <laughs> voilà parlant de ça c'est juste j'ai son numéro de non vraiment Euh, léegi attendez attendez dama bëgg ñu jeexal nag damaa sonn kii wanewul défilé am ci télé bi ñu topp ko nii rek bu jël suñu temps je veux jouer. can I play with you. non est-ce que am na apport euh, est-ce que am na ministère de la culture. si ñu ngi koy dimbali bañ a quoi oui. est-ce qu'il me voit. zéro des budgets très très lourds. zéro ay eh non zéro et je tiens à le dire parce que tu les gens quand ils voient quelque chose qui réussit ay duma bàyyi ça fait 14 ans qu'on le fait les gens pensent qu'on est aidé par l'État on n'est pas aidé par l'État. oui mais Adama bu doxuloon tam doo ko def depuis 14 ans la nag benn affaire non seulement def loo ko def loo ko def d Sénégal. non Sénégal. sur ma vie on ne gagne zéro franc. si tu me dis à Paris je gagne oui je gagne partout ailleurs je gagne Sénégal je le fais parce que j'aime ce pays parce que comme ni nga mais tu gagnes tu gagnes que finalement après tu organises même si tu gagnes rien. am na fi weccit lay nekk sa nekk. normalement c'est une Adama tu gagnes beaucoup. écoute télé bi man maa toog ak man kay par exemple parce que je fais. télé je fais un eh peu les gens croient que mais c'est vrai dans tous les dans les tous les tous les pays du non xoolal dañ leen di mais vous êtes obligé. mais Adama vous êtes obligé. je suis obligé de nourrir tout monde. elle est belle

bul ubbi. bul ubbi mais comment tu trouver ça. je donne ma jox la benn indice. Euh, c'est un un pays. c'est un pays là-dedans. oui c'est un pays qui est là. Ah, bon. Euh, euh, vas-y un parce que c'est pas un pays un pays ne pas dans un box. ok d'accord monument. Ah, c'est le truc de Wade. statut ah, mais non tu as triché eh, oh, mais non tu n'as pas triché tu n'as pas trouvé oh, oh oh mais oh, elle est belle ta robe. Euh, rendez-vous rendez-vous le le 4 alors ah. rendez-vous le 4 malheureusement ils ont trouvé. pas dû donner ay indices yooyu noonu.

Euh, attends, j'ai pas compris. Ils vont vendre ici ou Non non non, je veux dire comme ils nous suivent dans les différents événements qu'on fait en Europe, mmh. ils ont décidé de nous suivre en Afrique pour euh, euh, pour accrocher la clientèle africaine. Euh, comme ils ont fait pour toute la campagne pour pour les Asiatiques, tu sais, les Asiatiques les dañ leen di traité bu baax a baax di leen indi bus di suñ ñëwee foofu ñu jox leen ñu lekk ñu naan y a même un salon pour eux donc ils s'ouvrent maintenant en Afrique et donc ñu xool événement yi gën a kii rek fort comme suñu yësi ah. Mhm. ñu ñëw jàppale leen donc 300 euros. yow moom soo man dama bëgg a wax man dama bëgg wax surtout ci le fait que da ngay def fierté africaine. Oh, da ngay def fierté fierté Sénégal c'est pas évident. c'est-à-dire bu organiser ko yaa yaa yaa I give you my left. Oh, c'est ça en fait et en fait lu may wax lu may wax nii sénégalais yëpp dañu koy dañu bokk xalaat boobu ci Adama ci Adama Paris balaa ñuy gën a fier ci yow sax d'habitude euh, bu ñu gisee nga nga nga organiser même événement bi ci capitale yu bëri c'est jamais évident en France Black Fashion Week bi à chaque ah. fois day am ay commentaires et tout ça mais yaa ngi tenir yaa ngi yaa ngi góorgóorlu aujourd'hui fierté bi ngay def euh, euh, mooy tax ba ñëpp ñeme nañu xale yi ñeme nañu jigéen ñi ñeme nañu et nous c'est feel good def téléservice parce que jom fula ak ngor boo ko tu n'as rien à faire dans ce monde nous nous sommes fiers de toi ah, merci pour tout ce que pour tout ce tu fais ah, pour pour yëkkati euh, lii par su duré parce que euh, Dieu sait que c'est dur des fois et qu'on lâche pas l'affaire parce que loolu moo tax par exemple tu dis su dul woon lu tax nga lu tax lii moo tax jom bi moo tax ak li fi nekk xam nga 14 ans du 1 an du ans mënoo mm. ñëw ba ans ngay arrêté mm-hmm. sens donc xale yi la Alfi mën na ma wax xale yi dañuy ñëw à 700 ñoom ñëpp ko défilé ñoom ñëpp jàpp ci ñun pour won créateur bi la oo pour won la ni ñun ñun ñun lu ñu wax dañu ko gëm à mm-hmm. chaque fois mm-hmm. que nga yëg ko ou pas mm-hmm. buñ la invité ci télévision étrangère sax nous on célèbre ça le lendemain oh, ici wallahi ah euh, c'est ce que nous faisons tout le temps donc continuer comme nu ngay comme nu ngay def nii merci ba pare yéen ñi tax par mooy wax peut gouvernement euh, taxul ma yegsi fii mais man su su ma yegsee fii tey ba ñu may dégg Sénégal moo tax mhm. Mhm. franchement et c'est pas pour euh, euh, tu sais dans moo tax Sénégal mooy yéen Sénégal mooy mannequin yi ñoom Alfi mhm. ñoom ñoo xamante ne ñu bëri ñi samay rak la samay morom la ñu jàppale ma non c'est vrai ah, bon allez c'est mes petites sœurs ñu jàppale ma dama dul bàyyi défilé léegi non non nee naa leen am nañu suñu suñu bës denc ko sax bu leen ko wax. waaw duñ leen ko wax duñ leen ko wax <laughs> une grosse surprise. non di remercier waa Sénégal parce que tamit comme li nga wax nii su ma génnee y a une dame euh, mu gis ma mu ne ma c'est bien vous êtes jolie vous êtes moi j'aime ce que vous prenez xam nga loolu day neex. ngay def loo xamante ne muy métti voilà loolu moo tax du ma du ma mës a bàyyi. Mm-hmm. avec ou sans gouvernement du ñu mës a bàyyi. loolu la Fatou Gueye wax léegi xam nga Adama Barry moom dafa am jom moo tax ma bëgg ko. franchement mm-hmm. eh, moom la xalaat boobu la Sénégalais yëpp am. moom tamit xam nga Sénégal. Ah. dafa bëri jigéen ñuy mm-hmm. ñafe. jigéenu jàmbaar ah te gis nga soo gisee nag góor ñu mel ni yow iñaanu ñu bon ñu di ko wax. parce que Sénégal góor ñi yéen da ngeen war a plébiscité jigéen ñi da ngeen war a fii lu fi sotti jigéen ak tax. ba pare ñu teg leen ci kanam nag pour ngeen am gloire bi. moo tax j'adore les hommes qui plébiscitent les femme. Mhm. parce que wax nit dafa baax wàññiwul dara sa mbaax. dëgg la sama rubrique dama koy def de amul nooy négocier wax ba duma jàllale Modou Niass mii tey borom new men seen TV nga koy def mooy ñëw léegi nii pour def euh, pàcc bu mujj bi ci parti bi Mamadou Mouhamed Ndiaye eh waay ak veste bi c'est cool yow gis ni damaa ñëwaat rek nga jënd veste bu bees. la dernière fois bi may ñëw dafa takkoon jabar. jabar ji rek la cette année bi ngay ñëw jabar ji am na. ay waay ah, man je viens que dans les bonnes occasions c'est terrible. félicitations <laughs> yow félicitations. Eh, parce que Adama heureusement. ba tu l'as calculé en une année parce que moi bi ma nee sax de si am na doom man dama doon calculer kañ nga takk <laughs> ok il y a quatre mois. <laughs> Oh Mohamed Mohamed kat dama gaaw affaire bi dafa mel ni deful at. ni heureusement ba aada ba dëgg la ni def na at. non def na at def na at. mais kon doom bi fashion week lañ ko doon tuddee. bilaay walaay <laughs> non ca a dina la mës a défilé si nag. non niroo papaam war na. non premier yow la koy jox. amiin. <laughs> bu niroo bu niroo yaayam lay rafet parce que bu niroo papaam ah ah t'as pas sa mère. ah ouais ah, ah. Ah bi ñuy génte jabaru Mouhamed Ndiaye man maa ko topp comme ni jigéen toppee ci salon <laughs> maa topp xale bi au salon. yóbbu ko ndeysaan ànd moom ñu dem ci kër gis toujours caméra yi di ma filmé. ana sëriñ ci États-Unis bi. ndaalewu ma dara lii rek laa indi. Pape man daal ci tànn ba laa rek indi ko. ak dàll yi rafet yi mu naan 19 dollars xam ne dàll yi ko gis xam ne 500 dollars. non dàll yi wala statut bi moom naa ci yóbbu benn. dàll moom macha allah. xoolal yaay choisir na. par dema boo am. andi. <laughs> Ah, dëkk ba ngay maye. ci dëkk bi dëkk bi ngay eh, Mbaras bu Fatou Gueye. ah oui moom Abdouras. oui sama ndey statut d'homme Mbaras est xam nga da koy woyaat. dëgg rek maa ngi koy dégluwaat. est que xam nga da da koy woyaat de parce que dafay ñëwaat ci euh, woyam neex yi nga xamante ni moo ñu ay baba nañu la bi mu woy soxna jaara mbaras sax day ñëwaat dans le te xam naa ne mbaras mooy tax nga dem ak kii ak euh, yoonu ndaw xaw ma pour yooyu yëpp ay woy yu sérieux la mais mbaras laay waxoon moo lay yóbbu yoonu ndaw moom du la yóbbu topp sa ndaw du la yóbbu ndax yow topp nga sa ndaw ba yaa ngi dee <laughs> ñu dem ci revue de presse bi. ay jàpp waa foo jëlee veste bi. Euh, ci sama ndono maam yi la bokk. non non sama am fekkeewul la non non bi sama am fekkeewu ko. Ah, léegi so so fashion. Ah, sérieux teem la ko teem la ko jox very fashion waaw jox bokk bu ñu bu ñu noppee. bu ñu paree waaw bu ñu paree. ay ci ba. maa ngi jàpp de lu seet ci émission directeur télé bi taxaw waxul heure bi yow ngay wax heure bi. man damay def sama rubrique sax. soo doon xamoon sama papa moom télé. Modou Niass. Oh. directeur programme bi taxaw yaa laaj mbaras bari bu ko bàyyi noonu. ah yaa laaj mbaras bari. bu ko may ñu mbaras. mbaras bi kat jàll na ko. <laughs> xam nga man bul def laay bañ Pape Dodi li mu mën nii moo tax ba bëgg a jëlaat sama taar. nopp naa def kon nañ jaar ci sama rubrique am. oui. <laughs> jërë ngeen jëf. ay eh, non mais États-Unis nga jógee def ko de manière anglophone quand même. eh yeah. thank you so much. <laughs> <laughs> d'accord léegi ubbi l'observateur ñu ko waxee ci anglais. open. open what. l'observateur. non mais l'observateur tur bi la l'observateur du tur. waaw l'observateur doo ko changé non donc di doon change tur. you can change tur du change. waaw yow. Oh, jërë ngeen jëf ubbi l'observateur. leen di wax bi commencé FD. ay ah, oh, foot ñun ñu wax la di commencé bii. bàyyi loolu na ngeen ma bañ a moytu di commencé F laa njëkk a jàng foofu. of course. fuut yow dee bi. ma ngay dem nga ko xam yow. fuut. di. fuut yow. boobu laa njëkk a jàng. soobee naa jàngal yeneen be careful thank you so much. open. open. mais mënuma lu openal de yow yaay openal sa ma doon sonn si lu openal tous les matins man gëj naa open damaa close fan yii open. thank you so much. open. observateur mi ngi noonu ci gàttal. ja openal sa bopp. mais na na open di ñëw rek. parce que day bëgg tout le temps ma koy ubbil alors war a ubbil ba. mais baax na nu ubbi ok d'accord thank you so much open. mi ngi wax léegi papa bi na ko jeex na dialogue national bi nga xam ne moom lañ doon euh, waxtaanee keroog samedi observateur ni ki yeneen yéen ci la ñu dellu si ndax yàlla waxtaanee enfin le dialogue noonu la observateur xëy dikkee juróom-ñetti waxtu yoo xamante ne ji gaañu ñoo ngi ko doon waxtaan am ak xamal ne les forces vives de la nation di ñi nga xamante ne ji président Macky doon na leen woo ndaje ma ñëpp ñëw nañu Abdoulaye Daouda Diallo mi gars yi euh, opposition bi bañ mu doonati ministre intérieur wala muy organiser la ñu ci wax ak Macky Sall mi ko doon défendre lépp journal bi euh, dellusi waat na ci observateur tegal ñu ci sax ne lu aju ci Karim Wade mi nga xamante ne ji mi ngi ci kaso ba mais turam doon nañ ko dégg bu baax a baax eh, ci foofee nga xamante ne ji moo newoon ca ndaje ma ca dialogue national ba réew mi quotidien ne ñu dialogue national bi Karim Wade mooy l'absent le plus présent maanaam ci gàttal teewu fa woon waaye ña fa teewoon sax moo leen fa gënoon a teew ndax dañ ko doon tudd ñu bëri nag li ñu doon sàkk mooy libération maanaam ñu génne ko ci kaso bi grand place xëy ak ñun ci dialogue boobee nga xam ne am na mais li mu gis ne moo ci am ne dialogue dëgg-dëgg waxtaan wa diggante Macky Sall le président ak Omar Sarr bu Parti démocratique ñoom daal ñoo fa nekk kenn kii di keneen kii di tontu Omar Sarr war koo def dàqum ginaar waxaale sa soxla lépp euh, grand place ak la ñu waxante ñoom ñaar mi ngi ci biir yéenekaay bi Walf Fadjri moom leneen la gis mu di Parti démocratique Sénégal bi nga xam ne demoon na doon bokki ci dialogue national bi dafa demoon ngir toroxal boppam ci kanamu président Macky Sall ak li mu bëgg ci kujje politique gi wal fajir nañu moo di def loo ak wax waxeet leneen loolu am na ci juróom-ñetti waxtu yi waxtaan wi jël maanaam huit heures de temps yi wal fajiri juróom-ñetti waxtu yi caaxaan la ko jàppe euh, euh, euh, bu nekk journée dialogue nationale la président bëgg ba tax mu waxee ko ko noonee beneen yéenekaay mu di Sud Quotidien xëy ci dellu soit ak ku jéeg gi nga xam ne ba jàkkaarloo ak président Sud Quotidien wax nañu seen ay jafe-jafe ak li ñu coono ak it euh, seen euh, coono loolu lépp yéenekaay bi dellu ci ay kàddu Cheikh Bamba Dièye muy ñaawlu rajo télévision bu Sénégal ak ni mu nekkee ci réew mi te tëddeewul njaaxaanaay li bokk na ci ponk yi Sud Quotidien jukki ci dialogue national bi laas moom it xëy ci dellu siwaat mais moom nguur gee jafe-jafeem la gis ne daal ñu fare ci kujje gi song nañu ko bu baax a baax ca kanamu président bokk na ci président de la république mi tontu professeur Amsatou Sow Sidibé bi professeur bi wax ba ne dëkk bi amul xaalis l'argent ne circule plus li ko président tontu mooy kon xaalis am na ci réew boobu la jaloo ak li mu jàpp mooy joxante loxo boo xam ne am na ci ñi séq réew mi waxante nañu dëgg xoolante ci bët euh, ci gàttal daal déggoon nañu bokk na it ci Omar Sarr mi ne Macky Sall doo buur El Hadji Diouf maître avocat bi weddi ko ndax nee na Macky Sall buur la mooy le roi des euh, la ñëwee Macky ak li mu fa woon ku jëg gi ak syndicat yi ci noonu la ñëw la tribune moom xëy ci dellu siwaat Macky am na la mu bëggoon tribune moo wax loolu euh, lu aju ci opposition beeg seen i dëgg wax nañu ko kon kii di président Macky Sall ñu jeexale ak ne waxtaan nañu ko yéenekaay bi nañu waxtaan la wu tàngoon jër waaye nag waxtaan la aussi wu silwiise Pape. voilà merci beaucoup Modou Mouhamed Ndiaye. bu bi ah. mën na dem euh, danga ko bëgg yóbbaale. ah Pape. garaaw jëlal. kon baax na. boo paree ñu gisee ci veste bi rek. d'accord waaw sañu ma laa bañal dara. sañu ma laa bañal dara ndax lu nekk may may. <laughs> dama koo napp de <laughs> dafa ma ragal ba nga xamante si y a des collègues yoo xam ne dañuy traumatiser seen yeneen collègues yi. dama koy romb ci lu ne ko jox ma daal li nga sol. il les enlève il me les donne tout le temps oh. je te jure la rek il dit que dafa baax mais dafa ma ragal en réalité. <laughs> xale ñoom ñëpp laa napp yuus sax dama koo napp. yenn saa yi ñu dem boole ba Youssou dem nii nañ doo gaaw a pare sa émission ma ne ko surtout pas rek ma dem beneen télé ah. man tu me fatigues Youssou noonu laa ko ma dem beneen télé ah noonu laa koy santaase yow tamit fi def yi bëri nekkee santaase Youssou Ndour rek laa fi nekk <laughs> allez on va finir cette partie dans quelques minutes euh, Alfi ak man dañuy ah, euh, dellu si pour dernière partie bi Yeewu Leen Plus bi Adama merci d'être venu nous voir on est très content on regarde même ta chaîne sur le bouquet canal je te fais la pub aussi hein euh, lan ngay jeexalee pour message u nit yi ñëw incha allah ci fashion week bi bal ñu ngi leen di xaar ñu ngi laaj nit ñi Sénégal ñu ñëw jàppale ñu ñu jënd seen ticket surtout bàyyi ñaan invitation yi waaw tamit fu vingt vingt cinq mille francs VIP. waaw ils sont fële nañ leen jël euh, boutique Adama Paris. wala Radisson. bi nekk Medina. waaw bi nekk Medina sur la ah, corniche ñu ngi foofu ba léegi. trop merci beaucoup. Euh, Radisson donc ñu ngi xaar ñëpp nombreux et voilà ku ci mënut a ñëw vendredi nga ñëw samedi ku ci mënut a ñëw samedi nga ñëw jeudi. voilà Don Diego le milliardaire saoudien nee bu ñëwee nii lay def guccaace inaperçu. guccaace dëgg la nee bi mooy inaperçu guccaace. na gaa yëpp <laughs> man duma dem de. yeah thank you so much. you can no, coming like in, in the, in like the show. Stay. ok stay if you want. ok c'est bon euh, yeah. je tàggoo après je reviens. non problème sinon on te retrouve ce soir hein de toute façon. incha euh, demain. à demain soir <laughs> comme dama fàtte seen programme mu télé bi à force de voir ce qui se passe sur CNN sur ABC. oui non oui non oui non Good Morning America. que tu nous as tympanisé avec ouais. franchement je maîtrise plus votre programme. ah on est lundi œil du tigre c'est demain soir. c'est demain inchallah ak Mado. Ah. Euh, di jaajëfal bu baax Moodu Niass borom. Euh, beaucoup de talent beaucoup de talent donc euh, inchallah élément bi dinañ ko jàllale mercredi. jox leen adresse am ngeen mën fa doxantoo ndax ñu ngeen mën a am yu baax yi. Mm-hmm. donc merci beaucoup à Platinum ñoom ñoo jaar ci bopp bi donc ñoom ñu ngi nekkee ci Liberté 6 extension juste à côté de Etika. Mhm. doxantu leen fa 493 93 mooy numéro téléphone bi ñu defal leen ñu rafet et merci beaucoup à Dija Daba moom mooy jaar ci. voilà li may sol yëpp Dija Daba da nga rafet ba nit ñi nee nañ da ngay. seriously ñu ne da ngay xeesa. ah Adama lii non c'est sûr mais ni ngay mel ci télé bi quoi TFM. <laughs> TFM. Adama suba ban télé moo la invité. Oh, ah, where you go you go tomorrow in one one ban télé. non jeexal naa jeexal nga. Mhm. avant ngay ñëw fi ban télé nga mujjee mujjee. alors dem naa DTV. Euh, avec ah, Jupiter. dem naa sama frère la xam nga. Ah, mais yow la lu ko bañ man yéen sama frère ngeen. merci merci merci fais ce que tu merci beaucoup kii à à à à mercredi jeudi dama fàtte seen programme bu télé bi. merci Angéline Inch'Allah. <laughs> merci alors rek la ki t'a habillé juste rappeler que dañ ko tuddee doom en fait. Euh, ki ko ki ko tuddee. congratulations ki ko tuddee ki ko tuddee. attends j'oublie dama bëgg joxe message ci turandoo bi démb parce que hier la je te jure mhm. démb lañ ko tuddee doom moom ki yaa ay dara donc je tiens absolument à dire ki nga xamante ni moo ko tuddee doom yaa ñàkk koo tuddee doom. <laughs> elle s'attendait à du ah oui on est content. waaw tuddee nga alors que franchement ça va énerver sama kanam. waaw xam nga di waaj a def nii naan di lay Pape Cheikh ku baax nga bokkal ko dara tuuti ma def nii jërëjëf. allez on l'embrasse bébé Kia waaw. waaw on a bébé Kia. ça n'a combien. bii mooy sama première tournée. j'en ai sept mois. ah waaw mais premier bi moo dàq yi ci des. moo dàq yëpp moo gën a mémorable premier bi. <laughs> Eh, mais man par sama turandoo bi ma gën a bëgg muy turandoo métis bi nga xam ne papaam tubaab la yaayam ku ñuul la. waaw Pape bi nekk Hollande moo dàq. sama turandoo yi mu tudd nan Pape Cheikh sant nan. ten xoofa la sant donc man moo ma gën a ne parce que moom moo rafet. <laughs> <laughs> j'adore les métis. kon sama bos bëggatoo sama bos en plus il me ressemble quoi il est trop beau quoi. <laughs> c'est moi en blanc. <laughs> xale bi de xale bi de boo ko dee ci si suuri. Eh, xale bi dafa judd ba da ko am de ans. allez tam. Ah, je te jure je te jure je te jure. eh ah, eh je t'envoie sa photo par WhatsApp. ah je vais t'envoyer sa photo il est ah, en fait mm-hmm. sa mère c'est ma meilleure amie elle s'appelle Khady Eleanor Nolan je l'embrasse très fort mm-hmm. mais xale bi moom moo dàq ci mais du ko deux ans quand tu le vois actuellement tu as l'impression qu'il qu'il a quatre ans parce qu'il est gros mais bon c'est normal il ressemble à son tourando Mamadou Ndiaye merci merci à tout à l'heure ci guddi bi waaw sur sport à la une en tout cas je tenais à féliciter nga ko waxee comme ni nga ko waxee célébration ñi genre leen war di gën a mën a jàppale di wax tamit lancer un appel ministère de la culture ñuy jàppale sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ñafe euh, départ ci zéro pour jéem a au moins rendre visible gën rendre euh, visible. drapeau Sénégal drapeau Sénégal. Pape Cheikh je peux souhaiter un joyeux anniversaire à ma petite fille. oui euh, est à Paris moom mu ngi tudd Aminata donc. di nuyu yaayam mais pourquoi on normalement. parce que dama nekk di lire je autre chose alors elle donc maa ngi koy souhaiter un joyeux anniversaire en retard. di nuyu yaayam Yafa et sa grande sœur Awa Kala Kala. parce que j'ai juste dit que sama turandoo bi tubaab la donc ñoom dañuy jéem a wut. ay proximité ah, en euh, on se retrouve dans quelques minutes Alfie ak man pour dernière partie yeewu leen bi mooy after parce que yeewu leen léegi day am before lal coming next after. doom mi donc after bi c'est dans quelques minutes.